Yofa gi lendam da ci am ndax am ruq yo xamne ni jëm ci armeel ya kenn amul lamp, kenn yemu fe jaar guddi te ñun ñop ci dëkk bi lañ bok ah lamp yi fi la yam bu bi tàkkee bi du tak, bi ci suñ buntu kar takut ba nek fe takut am ruq yo xamne amul amul lamp ay satu sekk mais seen booru kër amul lumière waaw li ñu bëgg mooy tamit mbalit yi ndax auto mbalit yi fi lañuy romb di dem di touré te ñun ci doomu dëkk bi lay ah lan moo tax mënuñoo am ku ñu buubal mbalit ndax mbalit muñ buub dañ koy fay sareeti mbalit yi dañuy fay weer wu ne 1500 ku fayu duñ la jëlal mbalit ndax loolu métti na ñu góor ñee koy fay ñi jigéen ñee koy fay ñaareel ba canal yii amuñu fu ñu tuur ndox canal bii ñuy tuur ndox ndox mi sama néeg bee yëpp yoo lay feesee dell ndax bu lu ma cuuraay cuuraay rek bu cuur canal bi gillee rek duma am xet gu neex loolu lañ bëgg suñ kër gee xamuñ courant xamuñ ndox xamuñ yoon bala ñoo dem marché tata yi dañuy fu ne la ñuy xaw bala ñoo dem marché te yooyu yëpp mooy euh, sonal jigéen dañoo bëgg a tata yi di xeesi ñi xam yoon wu ñuy doxee si soxla di xam si financement yi nit ñi xam ndax ñi mën a gis suñ bopp ba liggéey. suñu jafe-jafe si coofa mooy suñu làmp amuñu ko su may wax ak yow ñetti fan a ngi nii amuñu ndox ñu nag dañoo jóg pour jàppale la. kon nag suñ jógee pour jàppale la yow it jàppale ñun nag gisaguñ dara dara gisaguñ ko dañuy ñaan yàlla ànd ak yow ba ci kanam ba xam dinañ gis dara te am naa yaakaar ne dinañ gis dara njaay jaata ñun amuñu ndox suñuy làmp amuñu ko suñ mbalin mi bëri dañoo cotiser woon jënd ay bale taxaw di ko bale bale ya damm na ah, bouver ya damm na amatuñu dara suñ suñ natt yaa ngi nii buñ teggee duñ am laa wax dara luñ koy defee suñu njaboot yi lañ koy fayee ndax suñ mbalin mi bëri na amuñu courant suñu làmp yaa nga ne amuñu poti làmp suñu armel yee suñu mbokk yi tëdd mu lëndëm ba bugg a dee ñu soxla fa ñeent lamp yoo xam ne bu ñu guddee tee bu ñu bëggee dem ci suñu mbokk yi ni foofu ñu dem fa wóor na yàlla ak yonente bi barke Sëriñ Touba kenn ñemetud a génn dem foofu ci guddi gi boo génnee dem rek dinañ la jàpp ci yoon yaakaar nañ la Kaolack heure buñ jaaxlee ñiy wax ci micro yi ak ñi waxut ci micro yi soo leen waxee dañ naan man sama soxla fa ma yaakaar ne falay lay fajoo fa koy waxee te Kaolack yëpp ñi ngi dëgmalu di yooxu naan Mouhamed Ndiaye Rahma lañu soxla loolu nag su demee ba am population Kaolack entier commune ba ci département ñëpp di koy tàllal loxo loolu Kaolack yëpp ñoo lancé benn message fort au président Macky sàll ne ko nit dañ koy jox kem ni dayaam tollu kem nim liggéey nim toll soo ko mënta jox lu ko ëpp Mohamed Ndiaye Rahma il est temps que ñu xam ne ñun de ñun ñi nga xam ne ñi ngi ànd ak yow ci biir mouvement Rahma ne la président gën a jublu ne la gën a jàppale su la gënee jublu gën laa jàppale te déglu la ci Kaolack Kaolack dana ko gagné dès le premier tour à quatre vingt pour cent politique moom dafa jafe ndax dox la ak wax ku sawarul moomoo ko ku amul pas-pas bu dëgër moomoo ko ku am ku nekku ku dëggu nekkul ci yow moomuloo ko waaye yéen jigéen ñi kar macha allah kenn mënu leen ci biir parti bi mais kenn mënu leen ci biir rahma raxma tey ñu nangu ko ak ñu bañ ko bu ñu jàppee ne kaw Kaolack am nañ fi téeméeri nit rek juróom-ñeent fukk ak juróom yëpp jigéen lañu kon seen taxawaay ci biir ci biir parti bi wala ci biir Rahma nekkatut lu kenn di lam-laamee bu Rahma yeggee tey fii fi mu yegg yàlla ak yéen jigéen ñi la loolu mooy dëgg loolu loolu mooy li am li may wax rek mooy fii ci kaw waxoon nañ ma fi problème mu armée li ci ay làmp loolu dëgg la waxoon nañ ma ko alors loolu li ma ciy wax tey mooy madame la maire mi nga xam ne moo nekk ci commune bu Kaolack incha allah dëddëme ci lënd bi dina jot tawat boobu ci amuñ benn sikk ci na dina ko régler loolu boo gisee ñu jaare ko foofu parce que loolu ci sañ-sañam la bokk waaye relation yi am ci diggante nit ñi en nit ak nit su demoon ba wane ne possibilité boobu commune bi amuñ ko sax jàpp leen ne incha allah loolu moom man maa ko waxoon fii ne dinañ ko def imma commune bi am na possibilité pour def ko wala li commune bi yanu doy na ko ba àttanul loolu Mouhamed Ndiaye dana leen wutu ci loolu parce que ñu ñëpp ci commune bi lañ nekk loolu moom da demee incha allah dinañ ko bind jébbal ko ko moom mi nga xam ne moo am sañ-sañu régler ko ca maa ngi am njort bu wér ci ne doléance boobu bu yeggee ci kanamam dina ko régler affaire yi ndox yi ñuy wax nit ñi ñi kiy def lu ñu mën fii ci biir Coofak yaakaar naa ne su ma juumut ak équipe bii ñu nekkal am na ay robinet yiñ fi defoon fii ci ay mbedd xaj na doyut xanaa ñu yokkaat parce que dafa mel ni am na ñeneen ñu koy jàmbat am na ñu ko jàmbat fii ci biir Kanda waaye ñoo ñëpp maa ngi leen di wax ne semaine bii ñu jublu mën naa am dina xat parce que ñu bari ñu ngi jëm ci préparer jëm ci julli waaye semaine ba ca topp bu jullee ba pare incha allah kon yooyu ñu wax ne amuñ dinaa wax équipe bi ko yoroon muy ñoom bàcc ñu dox pour dem SONES pour xool li ko war a def incha allah ñu fay ko danaa ko fay pour ñu defal xëccal leen ay ndox yéen ko ñu ko amul.